fin de saison bu neex moom mooy xaar ñi nga xam ne ñoom suivre championnat élite bu France ak bu Espagne bu fekkee ne ca Italie Allemagne ak Angleterre course au titre bi daal nag jeex na ndax Inter Milan Bayern Munich ak Manchester City ñu ngi ci yoonu gàddu sacre bi leneen lañu nemmeeku ci yeneen grand championnat européen yi di Espagne ak France foofee nga xam bëri na ay club yu mën a gàddu titre bi ba léegi ci Ligue 1 bu France ginnaaw 33 journée yu ñu jongante mu des juróomi match laata saison bi di jeex ñeenti équipe ñoo daal di toll ci ñetti poñ yoo xam ne moom la ñu rawante ci haut de classement bi mu di Lille mi nekk ci place bu njëkk bi am 70 points Paris Saint-Germain mi yor raay gi nekk ci ñaareelu place bi am 69 points AS Monaco nekk ci ñetteelu place bi am point points ak Olympique Lyonnais nekk ci ñeenteelu place bi am 67 points mu mel ni fii ak saison bi di jeex ku gën a régulier yaay raw gàddu. confrontation direct yi diggante ñeenti concurrent yi ñaar rek moo ci des Lyon mi war a dalal Lille weekend bi ñu jëm war a fekki Monaco ba ca topp match yooyu bu jeexee résultat ya dina joxe ay indication yu leer ci équipe yi nga xam ne ñoo war a xëccoo titre bi fii ak saison bi di jeex bu dee ca Liga bu Espagne moom ñetti club yu gën a mag foofee ci réew ma ñoo fas yéene daal di jàmmarloo ba journée bu mujj bi ngir mën a xam kan mooy gàddu saakar bii ci jamono yi nag Atlético Madrid moom moo jiitu ñaari punkal yi di Real Madrid ak FC Barcelone ginnaaw 32 journées yu championnat colchoneros yi am 73 points jamono ji nga xam ne merengue yi 70 points la ñu am catalan yi nekk ci. place bu mujj ci podium bi am 68 points waaye am ab match boo xam ne war nañu ko dabu FC Séville ci place bi am 67 points moom it euh, mën na am chance daal di titre bi wala sax mu daal di indi ak course au titre boobee. Sévillan yi daañu Dajé ak Real Madrid ci 35e journée bi journée boobee nga xamné ben confrontation directe rek bi dess ci trio de tête bi ci la fas am ci Camp Nou diggante FC Barcelone ak Atlético Madrid samedi 8 mai bi ñu jëm ak lu ci mëna doon sprint final bi narna naa lolu ci France ak ci Espagne mu melné cardiaque yi faw rek ñu jël seeni matuway ak émotion yu am solo yo xamné ne mu ngi leen di xaar fi ak bés yi ñu jëm.